bismillahi rahmaani rahim looy dox di fóoti sér di sol te fàtte yow say ràggi xol yaa ngi ne ripp ak gàkki xel yooyu ñëpp seen ngay tëb di dal looy dox di fóoti sér di sol te fàtte yow say ràggi xol yaa ngi ne ripp ak gàkki xel yu ñëpp seen ngay tëb di dal te woon nga fóot saru gi yow taaral sa xol bi soog di ñëw njëkkoon ñu lay yedd ak di caw yaay dof bu ciw ne gàtt xel looy dox di tiitarooy dara boo doon fi gor su gëm dara kon tey nga rus rabbul wara mi tax sa sikk kenn gisul rafleel sa biir wodde sa kaw fu nu woote mbaax nga jóg taxaw foo wéete jëf fa jëf ju sew soppil te wàññi nii nga mel ndaam yow jógal te wax ca kaw sa mbon gi na laa nelaw boo dëppulee dees na la caw ngir mi nga soobu kat jubul moo tee nga réccu gaaw te tuub jaamu ki nëbb say ayib ba tax ku seen la def groupe di sukkulum la jox nga jël moo tee nga wetti ruq jooy ndax fit wi rët na xol bi tooy tiit naa ëllëg si biir nga sooy mbaax gi nu foog ci yow amul tiit naa ëllëg bi su xiyaam ba ñépp wër la naa la daam kaay fay nu tey sunuy dërëm nga yëlbu yëlbu tus waddul nga yëlbu yëlbu tus waddul kàccoor bi yow fooy làqu kon doo daw baraw doo naaw ni tan yàllante koon nga nekk ban mbaa suuf su sew su kenn gisul dugal ngi tuub samay sa ruqub man la kan yeddaat sa bopp not bakkan laataa ñu lay yeew yor ci kan ngay réccu foofa ak di xul aahin ma jooy fi ngir ragal ki sàkk yërmandeeg mbugal tañaan ëllëg mu xëy dugal ñu jannatoom ja kenn sikkul rusee ñu xaadimul xadiim ak way yi jub yiñ dëkke jéem tàbbal ñu jannata naim ndax géeji mbaaxam fépp la wal ñu jannata naim ndax yërmandeem ja fépp la wal àdduna bul yaakaar ni yow rek yaa fi leen sama yoon yam fii